dafa jaadu si ci alxadaanatu ñuy wax dañuy wax yore gone ga di ko toppatoo di ko yëkkatee ko tëral di ko sang di ko sol ay yére di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko taxaw ci mbir yi nga xamee ne mënalu ko boppam loolu mooy alxadaana yaay la ne moo amee sañ-sañu yore doom ja yor bu demee noonu buñ ko fasee moom yaay ja wala jëkkër ja faatu bu fekkee nag mu ngi ci buumu sëyam kon moog jëkkëram ñooy bokk yor boobu waaye bu doom ja doonoon gor moom yaay ji muy jëbbër maanaam di jaam wala sax mu di ab yéefar bu tee rek buñ ko fasee mbaa jëkkër ja faatu mooy amee sañ-sañu yore gone ga du tee nag jëmmi dund ba moom góor gi nga xam ne moo ko war a warlu ba tey moo koy warlu bu dee doom bu góor yaay ji moo amee sañ-sañ yore ko noonu ba ba muy kàllafee bu xësee kàllafee nag moom doonte daal lompañ ni ki am ak laago mbaa mu doxit du te yaayam moom jaanam wàcc na dañ ko wax ne ko dangaa wéruwuñ rek di ko yor ndax la mu mënul boppam mbaa la mu dof mbaa la ko nuru bàyyi ba nag moom mooy wéy rek di ko dundal dagam doom ji kàllafe na noonu te lompañ mënta wéy boppam ni ki amee ak laago mbaa mu dof bàyyi ba mooy wéy nag moom di ko dundal di ko toppatoo yaay ji nag moom jaanam wàcc na bu doom ji doonee jigéen yaay ji moo ko war a yore noonee ba bañ koy may jëkkër bu jëkkër ji wéet ak moom ñu wax jëkkër ji ne ko mën ngaa wéet ak sa soxna si rek du tax yorub yaay ja jeex faaw demu wéet ko day am bu wér a wér buñ demee daal ba jëkkër ji wéet ak doom bu jigéenam boobee moom yaay moom yaay ja nag foofa la wàllam yem ca yor ba bu doom ja doonee nguli ngaan nag maanaam ku yàlla defal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen yaay ja mooy rek di ko yor noonee du am yemukaay ndax dañuy ëppal doole wàllu jigéen nga te moom des ko may jëkkër ba mu wéet ak moom bañ naa yaay ji ab yoram jeex na moom daal bu ko seedoo nguli ngaan moom yaay ji mooy rek di ko yor di ko toppatoo du am yemukaay bu ñu nee nag jigéen bu ko jëkkëram fasee mbaa jëkkëram faatu mooy amee sañ-sañu yore gone ga nii ñu ko waxee wax nañ ci gannaaw nag ne bu neexee jëkkër ji mu summi ko moom maanaam waxam moom ba juboo ci ne ko mën naa laa may sa baat waaye nag da nga may bàyyee yorub gone gi maanaam sañ-sañ bi nga amee woon ci téye gone gi yore ko moom ngay bàyyi nga xam ne kon man maay féetewoo yore gone gi te nag ma may la sa baat boo ci bëggee lu gën a yaatu ci googu wàll mën ngaa dellu ci buntu alxolhu summi ko bu ñu nee it yaay ja ci misaal mooy amee toppatoo ba waaye kilifa gu góor ga mel ne bàyyi mooy gàddu dund ba kilifaam gu góor googu nag dund ba moom moom lay war teyit war na koy nemmiku boole ci su matee jàngal xuraan mu yóbbu ko ñu dalal ko bu dee góor bu àggee ci mata xaraf mu xarafal ko bu àggee ci ñu war koo jàngal métier mu jàngal ko métier moom daal kilifa gu góor ga moom war naa sàmm wàllam lool muy dundal ga ak lépp luy xeetu sàmmonte ga ak yar ba te loola moom bañ koo bàyyeeg yaay ja mbaa ko ko yore su fekkee ne nag almawlal a'la muy aji pare amul kon ñu seet almawlal seet ku goreer maanaam bu fekkee ne gone ji ak ay mbokkam am nañu ay gàlloo maanaam am na ñoo xam ne ñoo leen daal yilif ba goreel leen kon dañuy seet seen gàllo yooyee ka ko ci yore mu yore ko mu ne nag fuñ fi tuddee loo xam ne day amee wàllu ndey baay ak wàllu ndey dong ak wàllu baay dong jàppal ne kon dañuy jiital wàllu ndey baay ga teg ca wàllu ndey ga mujje wàllu baay ga ndax dañuy wax ne wàllu ndey dafa gën a ëpp ñëwante yërmande moo tax bu wàllu ndey baay jàllee ñu teg ca wàllu ndey me ne boo déggee ñu tudd mbokk mu jigéen mbaa mbokk mu góor ak lu demee noonu nga xam ne mën naa am ci wàllu ndey ak baay mën naa am ci wàllu yaay rek mën naa am ci wàllu baay rek noonu lañ koy tegalee ña war a amee gone ga nag fekk dañoo limu te loolu moom lu yomb yomb la ndax ci misaal bu ñu dee ay mbokk mën nañoo bari su boobaa nag ndegam yooyee moo ci yore ga dañuy seet kañ defee ne moo ci ëppale ak mën a aar gone gi ak ñewante ko toppatoo ko ku ci ëppale rek ku ci gën a mën a aar gën a mën a ñewante rek ëpp yërmande rek ñu jiital ko jox ko bàyyi ka ca des su yemoo ci loolu nag ñu seet ka ca mag ñu jiital ka ca mag ndax mag mat naa jox ak cër day wax sart yi nga xam ne mooy tax kañu ne woon bokk nit ñi amee gone ga sart yi tax ñu jox ko gone ga kon jàppal ni ñi nga dégg ñu lim leen ñu ne noonu lañ tegaloo ci yore gone ga am na sart yi tax nag kuñ la waxoon rek ñu mën koo jox gone ga bu dul loolu des ko jox gone ga sart bi ñu ko wax mooy na am xel bu doonee ab dof doonte sax léeg-léeg mu tane waaye moom daal amee na ak ndof rek des ko jox gone ga bu fekkee àggul ci dof waaye dafa gàtt xel lool yemba di ba nga xam daanaka daa xaw a laal ci ndof kenn du ko jox gone ga ñaareel bi mooy mu mën a yor gone ga man koo aar waaye bu fekkee dafa màggat ba mënta yor ci gone mbaa mu tawat mbaa mu amee ak laago bu mënta yor gone desu ko ko jox ñetteel mooy ku rafet diine bu xasee ñaaw diine mel ne di màndi ñu koy gis wala gën xeetu caay caay mel ne njaaloo mbaa di tof po mu araam bu xasee ñaaw diine rek kenn du ko jox gone ga ndax day wàll gone ga loolee ñeenteel mooy barab bam nekk am kóolute barab bam nekk bu fekkee dafa bari ay kàccoor am ñu dëgg ñoo xam ne bu yoree gone gu jigéen foofee mën nañoo yàq gone gu jigéen ga mbaa sax la tax barab ba ñàkk kóolute mooy mënees naa sàcc alali gone ga mbaa ñu song ko siif ko moom daal na barab am rek kóolute nga xam ne ragaluñu dara lu yàqal gone ga ci wàllu diine jikko mbaa ci wàllu alalam juróomeel mooy na rafet yorinu alal koo xam ne xam nañ ko ci pasar pasaree alal ju mu yor rek yàq ko kenn du ko jox gone ga ndax su boobaa kon buñ ca boolee jox ko alal di gone ga mu daal di koy yàq mbaa mu ko cee defal loo xam ne daanaka mokk yàq ñooy moo ndax jaaduwut ba ca topp mooy bu mu amee tawat joo xam ne day wàlle mel ni ngaana mbaa siti bu amee tawat mel noonu nga mën na ko wàll gone ga kenn du koy jox gone ga ka war a yore gone ga nag bu dee góor da cee dolli ñaari sart mooy faaw na am jigéen joo xam ne moo ko yoral gone ga ku mel ne baay mbaa mbokk mu góor mbaa baay bu ndaw kuñ ci ne moo amee sañ-sañ yore gone ga it na amee jigéen joo xam ne moo koy toppatool gone ga nga xam nga gone gu ndaw moom toppatoo ba jigéen a ko mën góor mënu ko waxoon ne sax nag mën a am bindantam baax na waaye daal du mën a ñàkk jigéen ñaareel ba na doon ab aramante ca gone ga ndegam gone ga day jigéen joo xam ne mënees naa jotee ak moom ku mel ni bàyyi mi nga wax moom xam nga ne moom doom ja aramante nañu waaye nag ku mel ne doom yi bàyyi bu ndaw moom aramante wut ak kooka kon bu fekkoon ne kañ war a yore day jigéen te àgg na ci ñu mën a jotee ak moom kay am yore ga ba mu doon ku mel ne doom yi bàyyam bu ndaw ndax aramante wuñu te gis nga ne moom mi ñuy yore dem na bañ mën a jotee ak moom kon takkal ne ñu ne góor moo amee sañ-sañ yore ga na amee jigéen joo xam ne moo koy toppatool kookee ñuy yor te it bu fekkee kookee ñuy yor jigéen la te àgg na ci ñu mën a jotee ak moom moom mi góor gi tañ li ma war a yore na nekk ab aramanteem ba tey ka war a yore bu dee jigéen nga cee dolli ñaari sart benn bu mooy bu ñu nee moo war a yore waaye daa fekk mu dëkk ak nga xam ne moo yore woon ba ñu ko bëgg a jëlee ci ay loxoom mel ne bi lay yaay day moo yoroon doomam ji ci gannaaw doon tàggoog jëkkëram ñu ne nag su yaay ji amee gàllankoor bu mënta yor maam mu jigéen moo ci sës dañuy sart nag kon maam mu jigéen moomee bañ a dëkk ak yaay gone ga ci benn benn barab bu fekkee ne maam jigéen joojee moo ko yaayam ji nga xam ne moom la ab yoram jeex ñoo bokk benn benn barab maamu jigéen ma dañ ko weesu te seet keneen ka sës ci moom lu may nag ñoo bokk dëkk waaye kenn ku ci ne daa beru ci barabu boppam ba tey bi ne jigéen ji moo war a yore gone gii day fekk mu bañ a amee jëkkër joo xam ne jot naa wéet ak moom bu xasee amee jëkkër ba wéet ak moom rek dañuy jàpp ne na am gàllankoor ba du mën a yorati gone ga kon jigéen ji yore gone ga bu demee ba am jëkkër bu jëkkër ji wéet ak moom rek dañ koy weesu seet ka nga xam ne moo war a sës ci moom ka war a sës ci moom itam buñ ko seetloo muy jigéen joo xam ne moom it am na jëkkër ba wéet ak moom it ñu bàyyi ko seetaat ka ca war a sësaat li ñu waxoon ne ku mel ne yaay bu yoree gone ga bu amee jëkkër rek ñu war a jële gone ga ci moom jox ko ka sës ca moom la wax ne ka war a yoree nag su yégee ne yaay jeekat am na jëkkër ba wéet ak moom ba moom war naa laaj gone ga ñu jox ko ko mu ne pat bañ caa wax dara toog lu toll ni at amul ngànt amul dara waaye toog na lu toll ni at door a bëgg wax ne maa war a yore gone gi su boobaay dañ koy bàyyeeg yaayam joojee nga xam ne ba amee jëkkër ji yees ak léegi mat na at te moom mii war a wax ci jël gone ga waxu ca dara te amutoon benn ngànt su fekk su fekkee ne nag moom mi waroon a jël gone gi yëgutoon ne yaayam joojee am na jëkkër ba jëkkër ji wéet ak moom mbaa xamoon na ko waaye boobaa léegi matul at mbaa xamoon na ko boobaa léegi mat na at sax wér wér waaye ngànta teewoon rek mu wax ja mel ne daa umpale woon ni moom moo yeyoo yore gone ga ndegam yaayam am na jëkkër ba jëkkër ji wéet ak moom su boobaa kon te daal di jël gone ga nangoo ko ci yaayam joojee nga xam ne am na jëkkër ba jëkkër ja mu wéet ak moom jubluwuñu yaay dong ne bu demee ba am jëkkër ji yees ba mu wéet ak moom amatul sañ-sañu yore gone ga jàpp ne yépp jigéen joo xam ne bokk na ci ñi amee sañ-sañ yor gone ga bu ko yoree ba dem ba am jëkkër joo xam ne wéet naa moom rek ab yoram foofu la war a yam ñu war a seet nag kësës ci moom jox ko gone ga kon jàppal rek ne saa yoo xam ne jigéen ja yore gone ga jëkkëram joojee mu am ba wéet ak moom buñ ko dee seet mu dib araamante ak gone ga moo xam bokk na ci ay kilifaam moo xam bokkul ci ñu amee sañ sañ yore ko nit ki nijaay dañuy daal di bàyyi gone ga kookee ko yoroon rek jëkkëram jooju nga xam ne moom la am ba wéet ak moom waaye ab araamante la ci gone gi du tax ñu nangoo gone ga ca moom nga boole ca dee mu ca teg mooy jigéen ci yore woon gone ga am na jëkkër ji yees ba mu jot a wéet ak moom waaye buñ seetloo jëkkër joojee bokk na ci kilifa yi gone gi maanaam bokk na ci ñi nga xam ne am nañu sañ-sañu yore ko te mooy rek ñu ngi wàññi woon ci biir bi ngay wax ñi amee sañ-sañu yore gone gi am na ay góor yoo ci tudd ñooñee ay kilifa lañ ci gone gi bu fekkee nag jigéen ja yor gone ga am na jëkkër waaye daa bokk ci kenn ci kilifa yooyee mel ne li mu ko misaale doomi baay bu ndaw nga doomi baay bu ndaw bokk bokk na ci ñi nga waxoon ne bu àggee ci ñoom ñu amee sañ-sañu yore gone gi su boobaa kon dañuy bàyyee jigéen ja gone googee duñu nangoo gone ga ca moom di ko jox ko sus ci moom ndax wala xale bi ci boppam waaye na ko toxal ci kii ko yor mu daal di ko sus ci moom waaye nag gone gi dafa taq lool kii ko yore fi mu toll nga xam ne mu ngi wut a tàggoog moom kon dañ ko koy bàyyee rek ndax noonee ko xale ba taqee dañ koo toxal ci moom di ko doxaat keneen ndax kon loola war lay doon ci gone gi wala sax gone gi nangu na keneen nàmpal ko ku bokkut ak ci misaal yaayam ji nga xam ne moo ko yore te amee jëkkër ji wees waaye nag kookee nga xam ne moom la gone gi nangu nanguwul keneen daa wax ne man su ma ko jëlee ba di ko nàmpal day suma kër lay toog nàmpale ko fa ba ma dem toog ci kër yaayam jee nàmpale ko fa waaye kii ngeen wax ni moom moo ci war a sës moo ko war a yore du ma fa nangoo dem toog fa di ko nàmpal ba tey kon ñu bàyyee gone ga yaayam joojee rek ba tey bu fekkee ni ki nga xam ne mu yore gone gi warees na ko jëlee ci moom jox keneen waaye nag keneen kookee moo amut boo seetloo ñi ñu waxoon ne ñoo amee sañ-sañ yore ga moom rek moo ci des ba tey kon dañ ko koy bàyyee rek dañoo sartoon kañ jox gone gi na nekk ku ñu wóolu barabam ko yore itam di barabu am kaaraangeeg jàmm su fekkee nag warees na ko jëlee ci kii jox keneen waaye keneen kookee moom dañ koo doyloo wut dañ koy bàyyi ki ko yor rek bu fekkee ni kooka wóolu nañ ko ku baax la waaye dafa mënta yor maanaam mel ne daa mage mbaa muure bi bu mën a yor gone gi ba tey kon ñu bàyyi ko kii nga xam ne moo ko yore li muy jeexal jeexal ak yor wala bàyyi gone gi di ab jaam ñu àggee ci bàyyi ba moo am sañ-sañu yore ga waaye da di ab jaam xam nga jaam moom amul dara ci boppam ay mbiram mënu si ko takk kon yaayu gone ga bu amee beneen jëkkër itam nañ ko bàyyeeg gone ga rek waaye buñ ko jëlee ci moom di ko jox baayam bàyyi ko yaayam moo gën di ko jox baayam boobu nga xam ne jaam la dañoo waxoon ne kay yore gone ga mën naa bañ a bokk ak kilifaam gu góor ga léeg-léeg itam nag kilifa gu góor ga amee yore ga ak kilifteef ga mu ne nag bu fekkoon ne keneen ku bokkut ak kilifa gu góor ga moo amee sañ-sañ yore ga ba sax moo yore waaye kilifa gu góor ga daa wax ne moom day bàyyi ko fii toxu du rek day tukki ñëwaat ni ki wuti mat fan si ñëwaat mbaalu ko nuru daa wax ne fee mu jëm moom dafay toxu te gis ne foofa ak fii soree na lool ndax mat na juróom-benni bërit juróom-benni bërit nag day ëpp téeméeri kilomètre ndegam kilifa gone gu góor gi wax na ne moom day dem te fa mu jëm sori na te dafay toxu du dellusiwaat kon day war a yóbbaale gone googee bu boobaa nag ka yaroon gone ga ab yaram jeex na bu nanguwut a ànd ak moom ca foofe mu jëm moo tax mu teg ci illaa an tusaafira ndare bu dafa nangoo tukki maaxoo ànd ak kilifa gu góor gi su nangoo tukki ànd ak moom maanaam rek nga ne su nangoo toxu ànd ak moom rek kon ab yoreem gone ga ba tey mu ngi ci ay loxoom waaye nag bu nanguwut a toxu ànd kilifa gu góor ga ab yoram daal nay jeex ñu seet keneen waaye nag kilifa gu góor ga kat balaa sañ a yóbbu gone ga da fekk yoon wa muy aw am kaaraange jàmm rek lañ ca gis barab ba mu jëm itam noonu am kaaraange am jàmm waaye bu fekkee ne yoon wa daa wóore di baa fa mu jëm di fa toxu moo wóore di di nangu moom itam mu yóbbaale gone ga kon ku ko yore bu fekkoon ne nag kilifa góor gi day toxu waaye fa muy toxu soriwut mbaa boog day tukki rek dellu si mel ne wuti marchandise mbaa dox ay soxla rek ñëwaat kon bu sañ a wax ne daa yóbbaale gone gi mbaa mu naa ka ko yore faaw dangay ànd ak man li mu ne nag awtu saafira xiya day wane ne li ci ëpp jigéen moo daa yore gone ga nde moom muy góor muy jigéen daa bëgg a wax ne moom yore gone gi moom itam bu ne day toxu te kilifa góor ga nga xam ne mooy kilifa gone gi moom toxuut tey daal moom mi nga xam ne moo yore gone gi muy jigéen muy góor moo wax ne day toxu te fa mu jëm moom it mat li nga waxoon sittatu burud juróom benni bëri it xam ne kon dana ëpp téeméeri kilomètre dagam kilifa gone góor gi moom mi ngi fii dañ ko bàyyi muy toxu moom yore gone gi di yóbbaale gone gi foofee dañuy dogu ci ne ko da ngay toog mbaa boo mënta ñàkk toxu nga bàyyi ñu seet keneen koo xam ne moo yore gone gi waaye gone gi mu mënta sore kilifaam gu góor gii day wane ne jigéen ji nga xam ne moo amee woon sañ-sañu yore gone gi bu ñu nee bu xasee am jëkkër rek ba wéetu jëkkër ja moom jeexal na nañ ko nangoo ci moom jox keneen mu ne gannaaw buñ ko nangoo ci moom ba jox ko keneen bu jëkkëram joojee faatoo baa jëkkër ja fase ko itam duñu wax ne dagam jëkkër jee taxoon ñu nangoo ko ci moom jox keneen dañ ko koy delloo bu ko bëggee itam dee su ko nangoo su fekkee itam ka war a yore gone ga xam na ni moo ko war a yore waaye moo waxal boppam ni man damaa taamu wut yore gone xam ne moom daal àqam la waaye moo ko nangu wut a jël kon gannaaw ba bu rëccoo itam ne daa koy jël duñu nangu kenn du ko ko jox mu ne nag bu fekkoon ne ka war a yore gone ga daa amee ngànt loo xam ne moo tax ñu ne ko mën laa yore ni ki dafa tawat ba barab ba mu nekk moo wóorut mbaa daal benn ngànt ci ngànt yi ñu dem nag ba ngànt la deñ kon bu ngànt la deñee moom mu sañ a wax ne nañ ma ko jox ma yore ndax ngànt li taxoon ñu ne ma woon boo ko yor ngànt loolu dañ na bu ñu nee jigéen ji yore woon gone gi bu amee jëkkër ji yees rek ab yoram jeex na warees na ko jëlee ci moom jox ko sës ci moom mu ne bu fekkoon ne laata ka sës ci moom di yëg ne moom mi am na jëkkër te war naa jëli gone ga far daa ñàkk jëkkëram joojee mel na jëkkër ci daa faatu mbaa jëkkër ja fase ko kon day far rek téye gone ga waaye ka ko waroon jël si ne maa ci sës du ko mën a jël seeti kon ci gàttal bu ñu nee ci misaal yaayi gone gi am na jëkkër ji yees ba dañu war a seet ci sës ci moom mu jël si gone gi laata kooku di ko yëg ba di ko jël si nag far mu ñàkk jëkkëram joojee ki jëkkër ja faatu mbaa mu fase ko kon dañ ko koy bàyyee rek mu téewaat ko ba tey waaye ko war a sës ci moom du ko jël si ki nga xam ne moo yore gone gi ñoo waxoon ne kilifa gu góor ga moo ko war a jox dundub gone gi mbaa bu gone gi amee alal ñu koy jox ci alali gone ga la mu koy dundale la mu dundale gone ga mu ne loolee nag sañ na koo laaj ne nañ ma ko jox ma téye mu dund ba muy koddaay la sañ naa dogu ne dañ ma koy jox ca nañ ko koy joxe nag àttekat baa koy seet ko dee seet ci bis bu ne dañ koy jox nangam mbaa par ay bis bu ne mbaa par weer wu ne mbaa par at mu ne moom daal na àttekat ba seet na jaadu ci kiy joxe dund ba ak koddaay la di ko joxee noonee bu dee itam dañ koy génnee ci alal gone ga it ñu seet nañ ko ciy génnee di ko jox nag ka yore gone ga gone gi moom da nga mënti ñàkk ku ko yor te ka ko yor moom faawu fa mu nekk rek la gone gi mën a nekk na àttekat bi seet du ñu def ci wàllu dëkkuwaay ba bu dee dañuy luy ak dëkkuwaay na àttekat bi seet lañ ca war a joxeel gone ga muy payug dëkkuwaay ba ak la ca kookee ko yore war a fay ñu dogu ci ci alal gone gi la ñuy génnee payug dëkkuwaay ba di ne itam ka nga xam ne moo yore gone gi moo war a fay dëkkuwaay ba dañu seet rek ca na mu jaadoo lu ca gone ga war warlu ak lu ca kookee ko yore war a warlu dañuy wax ne nag ka yore gone ga deesu ko fay dara ngir yore gam ko yore léegi mbokk na ci ñi nga xam ne ñoom nga tegale ci yoon daal moom bu yoree kenn du ko fay dara ca yor ba nee nag bu fekkee ne mooy yaayam te ñàkk boole ci te gone ga am alal kon moom day dund ca alali doomam joojee ndax ñàkk ga mu ñàkk dañu wax ne sax bu fekkoon ne itam moom mi ko yore du yaayam waaye moom it dafa ñàkk maanaam dafa ñu doole te gone gi am na alal kon ci zahir moom day mel ne dañuy doog ci di ko dundal ci alali gone ga mbaa alali baayu gone gi ndax yorom boobu mënta ñàkk téere bii di aqrabal masaalik foofu la xaajum bu jëkk yem xaaj ñaaral bi nag mooy ci topp tàmbalee ci baabul bay buntub jaay